yàlla ku ko fàtte rek. te yàlla ku ko fàtte rek. yërmande ma tax. yërmande ma tax. ndax kum fàttali duutoo duutoo tal lu may moom. ndax kum fàttali duutoo tal lu dul moom. di ko ñaan yërmandeem akum njéggalam. di ko ñaan yërmandeem akum njéggalam. di ko ñaan xéwal yu ñu daj ñun ñëpp ñun jaam ñëpp. di ko ñaan xéwal yu ñu daj ñun jaam ñëpp. akuk jaamu yàlla. akuk jaamu yàlla. yàlla na yàlla xéwal. yàlla na nu yàlla xéwal. yàlla na nu dimbale. yàlla na nu dimbale. yàlla na nu jëriñ.